lu toll ci ñaar fukki at mu ngi nii Hyacinthe di jaar fu muy yu nekk di def lu muy def liggéey bi nga xamante ni ci livre yi la koy defee. répertorié selon des classes. Hmm. Hmm. Euh, il est réceptionné puis enregistré. mu nekk ci bibliothèque bi di saytu formulaire yi di contrôler ñan ñooy ñëw ak ñuy génn. étudiants yi ñoo ëpp lu ñu fiy ñëw day am ay chercheurs tamit am ay fonctionnaires mais ñooñu bi ñuy ñëw en général day fekk ñu am des sujets bien déterminés donc ci ñuy liggéey donc dañuy ñëw pour compléter seen seen recherche. lu néew ci yi ci salle bi nga xamante ni fi la ñuy liiree élèves yu neewa suñuy wax nank la ñuy wax. di wane seen dayoo. ñi nga xamante ni tamit ay chercheur la ñu ñoom dañuy ñëw ci bibliothèque bi ñëw ngir seet livre yi nga xamante ni li ñuy jàng la méngoo la je trouvais qu'il y a am na livre yu bëre yu nekk fii man ci misaal njàngum xaalis lay jàng wante li ma soxla yëpp laa fi gis. concerne ma discipline. li yëpp nag ñëpp la soxala la bibliothèque est accessible. am na yeneen yu nga xamante ni dañ koy def. képp ku yitewoo xam-xam dinañ ko jéem a jagleel ay livre yu nga xam ne ñooy tontu moom lu muy wut. yooyu sax moo jox bërëb bi dayoo dayoo boo xamante ni ku nekk da ngay ñëw gëstu xool li nga war a xoole ci digg téere yi ngir gën a xarañ ci lu ngay def.